يالا وخني شهر رمضان الذي انزل فيه القران انزل فيه القران وير رمضان موي وير ويغا خامتيني كي لسوا تي القران القران لا كو تخاجو موي لا موي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ما ام غير نيك مو نيك اك نيوب ñeel nit ñi ngir jubal leen tegtal leen yoon wi yàlla gërëm tegtal leen li yàlla bëgg waaye tam teg leen ci li nga xamante ni mooy yoonu texe fi dunya wala axira weer kon weer wi yàlla tànn ba wàccee ci alquran ji mooy weeru ramadan mu màgg lool rëy lool bari lool ay ngëne li gën a fes ci ay ngëneelam gën cee fes mooy alquran ji nga xamante ci la ko yàlla wàcce muy ak njub bi ak leer boo xam yàllaa ko wàccee ngir gindi ay jaamam bu ko defee alquran nekk seenu tax weeru koor bu ñëwee ak jullit dafa war a gën a sawar ci jaamu yàlla yokk ay taxaw ci ci yokk ay topp boromam subhanahu wa taala lépp loo xam ne lu baax la aw yiw la rek mu cay def lu baax mu koy def te di ci farlu bu baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci ci moom la yàlla wàcce alquran bu weeru koor mosaana ñëw da daan gën a am taxawaay bu bu ëpp ci alquranul karim gën koo jox yitte abdullah ibn abbas radiallahu anhuma dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana ajwada annaas kaana ajwada annaas wa ajwada ma yakunu fi ramadan xiina yalqaahu jibril wa yudaarisuhu alquran قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح صراحه من يونت صلى الله عليه وسلم مو غنونا مو غنونا تابع نيت نيب نيت نيب مو تي غنونا تابع موم يونت صلى الله عليه وسلم نكا نون ليب لو باخ صاح gépp lépp loo xamante ni lu baax la rek moo ci raw ñëpp waaye lépp luy melokaan bu rafet ak jikko ju baax rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci jiitu ku dul moom lu yëmul rek ci ci koor gi yëmul rek itam ci tabe kon kaana wa naas waaye nag weeru koor la daan gën a tabe ak tabeem ci weeru koor la daan gën a féese ndax weeru koor moom day joxe di joxe di joxe di joxe di joxe joxe gu bari te yaatu itam du nangoo téye dara ci loxom lépp lu ñëw ci ci loxom ci ak xeeti xiiwal ak xeeti yi fi yoo xamante ni yi ñu mën a jariñoo la da koy joxe jox ko ñi nga xamante ni bi ñoo ko aajowoo waa ajoo damaa yegoon fi ramadan mu ni xiina yalqaahu jibril wa yudaarisuhu alquran ndax jibril malaaka mi koy jàngal alquran dafay ñëw di taseeg moom day wàcc di taseeg moom ci weeru koor gi di jàngalanteeg moom alquran allahu akbar kon weeru koor ci la yàlla wàcce alquran waaye itam weeru koor bu ma sànni ñëw ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jibril day delsi spécial ci koor gi ngir di jàngalanteeg moom alquran loolu di yitte jeneen joo xamante ni jox nañ ko alquranul karim ak taxawaay bu am solo muy loo xamante ni sunna la la la war a doon suy wëy nu di ko dundal waxtu wu nekk muy nafar alquran waxtu wu nekk saa su nekk di ko jàngat di ko setantal def ay ay géew rawatina itam ci ci néegi yàlla yi subhaanahu wa taala bi euh, jumaa yi ak sax ci biir kër yi sax nag ñu ko ñu di ko fa dundal dafa amal ay jataay yi taxaw sedd ci alxuraan ak setantal ak di ko leer boo ko leeral loolu day nekk lu am solo kon yonent bi salallaahu alayhi wa sallam bu weeru ko masaana ñëw da daan gën a tabax li ko waral mooy alxuraan yàlla azza wa jal da ko da ko jox alquran te ba mu ko joxee alquran dañu ko laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum dañu ko wa laqad aataynaaka sab'an min almathani wal quran al azim nun yàlla jox nan la sab'an min almathani ba noppi jox la alquran al karim wal alquran al azim ni ko nag laa tamuddanna aynayka ilaa maa matta'naa bihi azwaajan minhum boo sax di sëgg di xool li nga xamante ni moom laa jox nit ñi ci des damay xeeti xéewal yi ma leen jox ci ci mbiri àddina donc balaa balaa yàgg mu jeex ñooñu la ma leen jox sax bu sax xool ndax li ma la jox yow mooy alquran moo ko gën fu féeti ko kaw féeti kaw lépp lu dul moom ndax wax wax yàlla la subhanahu wa taala kon mbokk yi weeru kon bu ñëwee ñaari mbir am na nañ gën a jox yitte alquran waaye tam nañ farlu ci di joxe di taxawu way néew doole yi di dimbali way ñàkk yi ndax ci weeru koor lañ ko gën a soxla ndax woor ba ngoon te amuloo jëfandikoo mbokk yi dafa nekk lu metti te daw yaram yàlla na yàlla suñu borom defal taw bi di bal sa jéggal sa jubal wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi